naqar ak tiis wàcc ci kaw askanu Sénégal mu di génn àdduna bala Ballago Seck nekk artiste musicien bu kenn dootu laajteeti fii ci Sénégal moom nag moo daal di ñàkk bakkanam ni ki tey ji rek ci dimanche ji bi ay 6 heures du matin jotee ginnaaw rek ba mu amee ab feebar bu ko tëral fële ci hôpitalu Fann lu tolloo ko ñetti fan ci noonu rek ci la daal di wuy jee rek boromam ci fàttali Thione Ballago Seck mi ngi gane àdduna 1955 fii ci Ndakaaru moom nag mi ngi bokkoon ci famille géwël boo xamante ni yàgg nañoo kañ ay buur moom nag daal dinay ñàkk bakkanam mu nekk nag naqar boo xamante ne nii rek daal dinay metti képp ku di sénégalais rawatina ñi nga xamante ni ñoo di ay fansam yi ko bëggoon lool waaye nag kii di Thione Ballago Seck nekkoon na membre group Dakar wa Star Band moo rek daa di ñàkk bakkanam di waajuru kii di Wally Ballago Seck équipe bu 24 actu yëpp di ko jaalee tey di ko ñaanal suñu borom daal di koy xaare rek ca aljana ya gën a kawe